gis nga ise an yan fa ana mbay aw na taqidahu wala daa loo amati mu yees boo ko ci bidee doo ci lu naqari waaw loo yees loo amati di ko daloo boo ci bindee baat yooyu duñ ko donn duñ ko sàcc du accidenté du génn solo loxo jënd leen loolu guru weer weer sori waaw والخيت عليك محبة مني baat yooyu la boo amee mbubb mu bees bëgg mu rafet jàmm te duñ ko sàcc wala nga am oto bu bees bañ mu accidenté wala nga yor bitig bañ ko ci wuutu moom nga ciy bind doo ci am lu la naqari mook soo takkee séet sax te bañ nga bind ko ci ginnaaw ga gisee waxuma waxuma nga jënd sa mbasañ bu weex uti daa di ko ci bind dere sa baaraam nga koy bind sa baaraam weeru oto bi ci kanam gi sa baaraam nga koy bind ngeen jënd loolu guru laa wax weer wi dafa sori bul fàtte cliqué si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dóor nga mën ko njëkk am rid of